sa digganteeg Balla Gaye recevoir na la wala. non Balla man Balla Gaye mosuma kaa gis Balla Gaye xamuma xamuma ko mais maanaam dëgg bu jotee dañ koy wax dëgg bu jotee dañ koy wax Balla Gaye dafay def lu benn mbër deful Balla Gaye dafay def benn mbër deful man Balla Gaye xamuma ko ndax man li ma sax ay ndiw nii ay may ma lii du ñaan fii laay liggéeyee di ambulant te maa ngi sant yàlla maa ngi yor sama soxna yor samay doom di faj lépp. yaa may dégg mais dëgg boo ko gisee danga nga Balla Gaye def na fi lu kenn deful ñi naan ko bàyyi làmb bu Balla gay bàyyee làmb làmb yàqu bu bàyyee làmb làmb yàqu xëy na def na li mu war a def yëpp Balla gay bëggal na ñi mu war a jig bégal ñëpp la ma waxoon rek laay waxaat Balla gay yow lekk mbër dong nga defagul lekk mbër dong moom nga defagul Balla gay def nga lépp Balla Gaye def nga lépp buñ la doon daan junni yoon junniy yoon du tax nit ñi bàyyi la gis nga bi nga daanoo bi la booy ñaa daanee lan la gën a bëgg bi nga bi la booy ñaa daanee lan la gën a bëgg a ah, góor góorgóorlul te ne ci li nga ne defoo fi dara loo xam ni war na tax nga bàyyi làmb yow def nga lépp yow maanaam ki gënoon a sonal nit ñi ni woon du daanu yaa ko daan ak ñeneen ak ñeneen ba pare nag li ma gën a neex si yow man Balla gay li tax ma bëgg la nekkul làmb ji Balla Gaye li tax ma bëgg ko mooy yërmande ji mu am si doomu aadama ak ni mu bëggee waajuram ba pare day dimbali ñoo xam ne maanaam xamuñu ko Balla gay maanaam bu gisee nit ku sonn sax dala bu la gisee de mën na jooy ndax yéen mën a jum am si yow man looloo tax mu bëgg Balla Gaye man caarooy géej laa dëkk caarooy géej laa dëkk du ba jigéewu ma géejawaay yaa ngi may dégg mais Balla Gaye man dama koo bëgg mu neex ma tey yàlla tax ma koy ñaanal nag yàlla defal ko jàmm may ko gudd fan ak wér. may ko jabootam ñu ko daanee ñëpp dañu ne dañu dem da dem Balla Gaye dem defaruwaat parce que dañu koo laal maanaam dañu ko yàq. waaw waaw loolu moom si làmb la bokk parce que nit booy summeeku mbooloo mu toll noonu di la tiim même bu dul dara sax da a defaru sa bopp. parce que ku nekk ku nekk moo fay ñëw même bu dul ki ngay bëreel sax lu mu la def ak la ñàkk a def loolu moom ñun ñii di jaay sax dañuy defaru man mii di wax si TikTok beeg di wax a yow nii damay defaru ndax bët baaxul waaw loolu moom maa ngi ko si digal mu jéem a dem jéem a taxaw jéem a gën a defaraat gaa sax kenn mënu si moom dara ndax Balla Gaye am nañ ay ñaani waajur loo ko mën a def si làmbu ji la nii rek nga daaneel ka affaire yooyu mais bu dee ay def ko loo xam ni da koy bon wala da koy yàq ak affaire yooyu ndax Balla Gaye maanaam bu budul ay waajuram sax ñi muy dimbali dañ koy ñaanal ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg Balla Gaye kenn bañu ko waaw loolu maa ngi ko koy maa ko koy wax mu jéem a gën a kii te faru xam ne lii du dara ñun Balla gay xola yow la ñu gëm yow la ñu àndal lekk mbër rek nga ñu defalul